dëppook ñaar fukki fan ak juróom-ñeent ci weeru avril atum 2021 di fukki fan ak juróom benn ci weeru koor atum 1442 ginnaaw gàddaay yonent bi salallaahu alayhi wa sallam Serigne Mountakha Mbacké Bachir xalif général de mourides am gan gu mag goo xam ne ma nga bàyyeekoo ci réew Mauritanie ci dëkk bu ñu naan Boutélimite di Cheikh Sidi Mouhamed Youssouf Ould Cheikh Sidi baaba di sëtu Cheikh Sidi baaba mi nga xam ne moo nekkoon ak Serigne Touba foofu ci réew Mauritanie mu amal nganuk ñaari fan fii ci Touba ci Serigne Mountakha Mbacké Bachir xalifa général des Mourides ngir dundal kóllëre gu mag gi nga xam ne moo doxoon ci diggante Cheikh Sidi baaba ak Cheikh Ahmadou Bamba kóllëre googu sax mu ngi bàyyi ko woon ci maam Mor Anta ak waajuru Cheikh Sidi Baba ba ci maamam loolee nag la Cheikh Sidi Mohamed Youssouf ñëw fii ci Touba di feddali ak yeesalaat kóllëre googu ndax Cheikh Sidi Baba nekk na koo xam ne ku bëggoon Cheikh Ahmadou Bamba Xaadimu Rasuul la ndax way na ko ay xasida yu bëree bëri noonee it la Serigne Touba meloon ci moom ndax Serigne Touba moom it bind na ay xasida yu bëri di ko ci tagg. mu nekk diggante bu ratax lool diggante boo xam ne dañ ko yàgg a dundal ndax bi fi Cheikh Sidiye Baba bàyyeekoo wuju suñu borom Cheikh Sidi Maxtaar mi nga xam ne moo di rakkam ak ay doomam ñoom ñëpp dañoo feddaliwaat kóllëre goog nga xam ne moo doxoon ci diggante Cheikh Sidiye Baba ak Serigne Touba. ñu daan ñëw ci njaareem daan fa fekk si sëriñ bu mag bi ba ci dëkk bu seel bi di tubaa daan dox kóllëre googu seen diggante ak doomi sëriñ Touba yi ba tey ji ci sëtëm yi loolee la Cheikh Sidi Mouhamed Youssouf uldu Cheikh Sidi Baba ñëwaat feddaliwaat ci sëriñ Mountakha Mbacké Bachir ngan gi nag nekk ngan goo xam ne sëriñ bi fonk na ko lool mu teg ko fu kawe ndax gan gi bi mu ñëwee fii ci Touba ñu dalal ko ci résidence Khadim Rasoul sëriñ bi moo déplacé wul boppam dem ba fi nga xam ne fa lañ ko dalal ànd ak ñenn ci njabootug sëriñ Touba gi. kon mbokk yi ñu fa yéene ànd ak yéen dégtal leen ngan gi nga xam ne Cheikh Sidi Mouhamed Youssouf moom la amal fii ci Touba Mbacké ci xalifa général des Mourides sëriñ Mountakha Mbacké Bachir di nganuk ñaari fan doonoon fukki fan ak juróom-benn ci weeru koor atu 1442 ginnaaw gàddaay yont bi salallaahu alayhi wa ak fukki fan ak juróom-ñaar. wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu mbokk yi ganuk sëñ bi bu tedd gi di doomi Cheikh Sidiya di seenu gan sëñ bi neen di seenu gan yéen waa Touba nee na moo fi ñëw tey moo ne mooy jóg ak tànkam ñëwal boppam nee na xam na ne këram la ñëw tey fii mooy première këram mooy ñaareelu këram ne na fu mu am ci àdduna nee li leen booleeg waa Touba boole woon bàyyam ak waa Touba mooy Cheikh Sidi ak sëñ Touba nee na rek la nee nag moom yoonu baayam rek lay jaar moo tax mu ñëw siyaar si wàll yi wii di moo Mouhamadoul Mountakha nee na yittey àdduna taxu koo jóg waaye ñëw ngir dundal si loolu rek ku tax a jóg nee na dafa ngir yeesalaat kullëre gi Cheikh Sidi ak sëñ Touba nee na yéeneem di xam na ne rafet na loolu yéene ji ko indi nee na mi ngi leen di nuyu bu baax a baax nag nee na bég na lool it ci lii nee na dara gënt kawet yi nee na nee na lii rek mën a am ndax bu ngeen niroo sëñ Touba nee na wàcc ngeen sëñ Touba nii la meloon nee na jërëjëf na yàlla ngeen am am jàmm bu faw incha allah nee na moom moo bëggoon a ñëw moo bëggoon a fekk sëñ bi waaye li muy doog a ñëw rek ca déggoon ñu ne mi ngi ci njàng mi اي قرنت الارواح بمحبوباتها نانا اي روب لكلو نانا رك داني بغنت نانا عندنا بن لا دخل مع جميع استاذ الشيخ الخديم اليكم موم موي الشيخ محمد ولي يوسف دومي الشيخ سيدي الشيخ سيدي باب ميغا خامني موم لا سيني بي مرتني موي ما مو جور يوسف بايام دانا ديف دانا غاني سي سيني فالو اد دانا في ياغ لول نيونا سيت سيني سيني بشير ديفنا فك عندنا موم تي ديم تي بنين دك موميت نك نينا لول moo tax ren ñoom mu ñëw fa ci turu seen famille ñoom ñëpp nee nañ ñoom dañ ne ko bu ñëwutoon ba agsi Touba ci seen tur ñoom ñoom seen xel du dal ndax loolu daal ne loolu ko tax a gën a jóg ak it sëñ bi ba mu toogee ba léegi gisagu ko mu ñëw nag ci seen tur ñoom ñëpp la fa teewal waa kër Cheikh Sidiye yi. nii mu gaawee nii mu ñëwee. dajeem seeg sëriñ bi yëpp. wallaahi wallaahi loolu mbirum sëñ Touba rek la. xaala Cheikh al Khalifa anna hada illa min حسن حظك إلا من ما اختاره الشيخ الخديم أنت أتيتنا وصلت الآن الحمد لله منذ ساعة ساعة فقط ساعة زمانية وصادف حضور هذه الكوكبة من حفدة الشيخ الخديم من العلماء الأجلاء الحمد لله أن هذا إلا إلا توفيق إلا توفيق من الله سبحانه وتعالى والله إلا توفيق من الله سبحانه وتعالى إن شاء الله توفيق من الله سبحانه وتعالى مستقبل مستقبل قال انه الحمد لله ويستقبلك هذا الى من من الاستقبال يستقبلك هو وابناء الشيخ الخديم قال ان ان شاء الله وما بعده ايضا يكون هكذا ان شاء الله تعالى ان شاء الله تعالى ما شاء الله نينا لي رك لا lañ لا نياكار توبا لي رك لا نفي ياكار نينا العلاقة الحمد لله ما يكفيها شد أخبار سنة ولا سنتين نينا لي لي ngeen li leen kenn mënu ko waxtaane benn at wala ñaar at wala ñetti at lii li boole kër Cheikh Sidi ak sëñ Touba nee na nee na yàlla rek yàlla rek lay du layen nee na bu dutoon yàlla du demee nii nee na du leen yàlla boole wutoon nee na du seen diggante du demee nii xam na ne yàlla rek ngeen xool ci moom incha allah sharaf nee na lii nag honneur la nee gën a kawe lii nee na gën a kawe lii daraja mënta gën a kawe la xaal ana faqat incha allah nee na tey bokk na ci bis yi gëna tedd ci mom ci dundam bam dawe dund ba légui néna li am tey mos ko am néna néna yow yaay seen kilifa légui ginaaw fi doomi Cheikh Sidiye yi nekkatut yow lañu xolé Cheikh Sidiye néna na yaa gën a yëkkati ko ci ñoom kuñ mën amit néna na yaay seen xalifa nee na seen kilifa alhamdullah alhamdullah alhamdullah alhamdulilah sëñ bi ñëwee ci suñ bi te sëñ bi ko xaw a te yebaloon suñu borom Moustapha